put aside what they're doing and see the value of what they can do. Perhaps it's education, perhaps it's looking for work, perhaps they are taking more of their, of their time, mm -hmm. which doesn't enable them to have free time to help. That's common even in our, in our own country. In our own country, members are, are quite old too. But it's due to students being in college, students away from home, so it's a universal problem. I'm afraid the answer is quite hard to find, but all I can do is encourage young members to, to join, try it and see how it works, even for a, a year, six months. But once they join, I'm sure they won't leave. Yeah. It's very worthwhile. Okay, uh, Uncle, Reverend Allen mentioned something like uh, projects. Allen. Okay. Mentioned something like uh, you are embarking on projects here in the Gambia. What kind of projects do you embark on? Eh, jërëjëf eh, eh, ci li liñ ay yëngu-yëngu yi nekk ci ci Gambie ci mbiri seen bi pour ndax mun a am doole pour dimbalee néew doole daal daal daanaka comme ni nga ko waxee ngay gën a màgg. léegi fi nekk nii ci seen dimbal am nañ tëral nañ programme boo xam ne mun dañoo mun a fayal school fees ñi nga xam ne néew nañ doole. Hmm. yéen a suñu bénéficiaire ñi nga xam ne ñu ngi leen ay ay néew doole ñu ne dimbale seen doom yi ñëw ñu. ak ñeneen ñoo xam ne sax nekkuñ euh, bénéficiaires nga koo xam ne dafa am euh, teexa teexa ci fayee ko school fees boobu programme boobu am nañ ko euh, headquarters bi ñu tabaxal boobu it comme ni ko waxee am nañ fa ay ay ay shops ay bitik yoo xam ne ñu ngi hmm. ñu ngi cee am ba pare xool bi fa bi fa nekkee ci ci projet bi boobu it ku am programme mun nga koo luwee xaalis boobu noonu suñ koo suñ suñ koy suñ koy am ñu mun a mun koo dajalee ndax mun mun ñoo dimbale ndax mun a yóbbu euh, euh, programme bi mooy bu fekkee ne dañ am euh, ndox pour fay ñu am kuram pour fay cash for loolu yëpp ak bu fekkee ne dañ dem ba xëy na ëllëg si mun naa am ñu ñu gën a taxaw gën a am doole ñu mun a am koo xam ne dañ koo jël muy liggéey muy employé permanent employé muy muy secteur foofu noonu nekk fa mun koo fay salarié am ci la ñoo am eh, yaa ngi dégg moom la wax ne am nañ yeneen projets yi nekk ci kaw bi hmm. eh, wëlkat yi wëli wëlukaay machine yi eh, fan la nekk benn baa ngi daasilaam yi ñu ngi ko ñu ñu ngi am amiti beneen pour sifo ba pare it gaali nappakat ñu ngi ko ñu ko amiti mu ngi a ñu ko war a def North Bank ñu ngi bëgg dem foofu de foofu nu jaale ne foofu gisi place boo xam ne catholique mission bi ñooñu ko bëgg jox ci seen euh, paaka yi foofu hmm. laan bi ñu ñu am foofu euh, euh, cashew orchard loolu yëpp ci ci kanam indi indi nekk seven years bu fekkee ne dafaa ñëw fii su yooyu projection yi yëpp commencé di di am ay ay ay jur kon nga gis ne nañ mun a am gën a am doole pour taxaw mbiri Saint Vincent de Paul nakaate xale yi comme ni nga ko rek man loolu laa bëgg a dëgëral na xale yi génne si mbootaay mi seen bos la mbootaay bi du du du màgget de xale yu ndaw ñoo ko sos ba tax xale yu ndaw ñoo ko war mag yi nekk ci nekk members ñu nekk di jox xel xelal di leen advice di ànd ak ñoom di leen jox doole ci seen eh, liggéey bi waaye mbootaay bi daal damaa ngi bugg a wax ndaw yi ni mbootaay bi seen biir Sénégal mbootaay ndaw yi lay nañ dugg si seet ñu ñëw seet léegi-léegi dañ dee am Euh, pour yónnee euh, euh, ci bitim réew ci ci ci conférence yi ñoo def yoo xam ne dafa war a nekk ay ay ay ndaw seen biir seen di pool dafa nekk daf ñoo jël daf ñoo jox texate pour ñu am ku ndaw koo xam ne nañ ko nagoo ne kii ndaw la kii yuut la ba taxi na Gambia du am lana tax war loolu war a am te ñu ngi fii duñ jeex loolu seen pro seen programme nañ ñëw ñu bokka ndax yore programme bi ñu teetale ñu ñu mag mag yi jox leen ay ay ay ay ay xalaat dañu mun a yóbbu euh, euh, société bi euh, ni ni mu waree mu nekk seen bos seen Vincent de Paul Frédéric Osanam ak yeneen mbo moromam yi ñooñu ñëpp yooyu dégg nga moom seen Frédéric Osanam ba moo jiitee lii. Mm-hmm. moom fukki at ak juróom-ñaar rek la am di jàng school ñooñu ñoo ekkati yi dund si yëpp boo déggee Frédéric Osanam loolu moo tax fu mu foo mun di dem rek. waxtaanam bi mooy kooku ñoom juróom lañ waa moo ci gënoon a ràññeeku ba tax ñu tuddee ñu eh, gisee seen bopp ne kii moom moo jiitee ñi source bi ba pare seen bi seen dipool dafa mel ni kooku it ku ràññeeku la laabi bu ràññeeku la ci dimbal ci ci am ite ci dimbal nit yi ba pax ba tax ñooyu ba sosee mbootaay bi rek ñu jël ko tuddee ko seen mbootaay seen Vincent de Paul seen hmm. Vincent de Paul nit la laabe la ñu gis ne lan la suñ boota bi ñu ko sos nii naka lañ ko war a tuddee yéen a mënoo ne ko tuddee Frédéric Ousseynou boobu noonu moom ci boppam. waaw waaw moom ndaw la mu gis nga euh, euh, euh, soso moo ekkati programme bi léegi ñu seet ne laabe bi ku takkul la so nañ tuddee suñ mbootaay Saint Vincent so dafa mel ni Saint Vincent de Paul patron tur la. turi la comme Saint Thérèse. waaw patronam Saint Thérèse la. waaw of Charge Jesus. yoonu soo eh, mbootaay bi noonu la tudda waaye ñi ko sos ki ko jiitee mooy Frederick Osanam loolu moo tax foo foo mun di dem Gambie fi léegi fi nekk nii suñ place boobu noonu Osanam House lañ ko tuddee donc ku xamut doo xam Osanam bi xëy na eh, da ngaa ne dañ spell eh, Osana wrongly nga loolu la mistake de turi nit ki mooy Frederick Osanam so loolu moo tax ñu ne Osanam House so xale yi Osanam ba moo jóg pour nekk seen Vincent de Paul euh, euh, mbootaay fukki at ak juróom-benn rek la am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar rek la am 17 years da ko am mu sos mbootaay bi 1833 180 years léegi nii soo ana ndaw yi génne si leen ngeen ñëw jël mbiri société bi mbiri mbootaay bi ci seen loxo ndax mu def ni mu war ko seen bos la. Now, would you like to go back to St. Kizito's? I hope you do, because I'm going to watch. Let's watch and listen to them again.